yàlla na yàlla faj seeni aajo rek laay wax. man mënumaa faj aajo. sëriñ bi nee na moom mënut a faj aajo. mënumaa faj tawat. mënumaa faj tawat. mënumaa faj dara. faj dara. ki nga xam ne. ki nga xam ne. moo mën a faj aajo. moo mën a faj aajo. mën a saafara tawat mën a def lépp. saafara tawat mën def lépp. nga xam ne bu ma tawatee man. nga xam ne bu ma tawatee man. moom lay ñaan mu saafara ko. moom lay ñaan mu saafara ko. bu ma amee bu ma amee aajo. moom lay ñaan mu saafara ko. moom lay ñaan mu saafara ko. kooku. kooku mooy sunu borom. kooku mooy sunu borom. mooy ki ma leen di wax ne yàlla na yàlla yàlla na faj seen aajo. mooy ki ma leen di wax saa boo leen ñaanal ne yàlla yàlla yàlla na faj seen aajo. boobu kii mooy suñu borom. loolu nag doy na. ko xasee wax rek. bu kenn. di ma wax ne sëñ bi ñaanal wax ni sëñ bi ñaanal ma. sëkk. googu ñaan doy na sëkk. aw ma gu gu ëpp. aw ma gu ëpp. moom kay. moom kay. bu ma ko bu ma ko ñaanee loolu. moom kay bu ma ko ñaanee loolu. yàlla na yàlla na ko nangu rek. yàlla na ko nangu rek. nangu ko rek am solo. nangu ko rek moo am solo. ndax bu ma ko waxoon ñaanal leen it. nee na bu ma ko waxoon ñaanal leen it. te moom mii maye nanguwul it. te moom mii maye nanguwul it. du jëriñ dara. du jëriñ dara. waaye bu nangoo rek. waaye bu nangoo rek. ku ci nekk ku ci ku ci nekk. aajo dana faj sa aajo dina faj. am na ko. ne moo moo moo def àdduna nii. nee na ki nga xam ne moo def àdduna nii. jox leen sama def ci li ci def ci li ci def ci nit ñi. def ci nit ñi. luñ ne mën na ko rek. luñ ne la na ko rek. nga war a xam ne dëgg nga war a xam ne nag mën na ko rek. yàlla luñ ne la mën na ko rek. wane na wane na lu war a tax lu war a tax nga xam ne nga nga xam ne mën na ko na ko dëgg la dëgg la jërëjëf kon nag na ngeen fas li ngeen bëgg te wax amin sëriñ bi nee na ngeen fas li ngeen bëgg te wax amin bu ma noppee nag ku nekk yeeweeku bu ma noppee nag nekk yeeweeku ma mën a woo li ci des ma mën a woo li ci yàlla yàlla fas seen aajo saafara seen tawat amiin barke barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke borom Tuuba barke sëñ Moodu Mustafa barke sëñ Fallu barke sëñ Baara Mbacke barke sëñ Basiru barke sëñ Abdou Lahad barke sëñ Abdou Borom Dër barke sëñ Abdou Samad barke sëñ Ibrahima Mbacke barke sëñ Abdou Lahad barke sëñ Abdou Khadr barke sëñ Saliou barke sëñ Modou Sa Dieng barke sëñ Mourtala barke sëñ Modou Sa Dieng barke Alaaji Baara amiin ba ko allahumma salli ala sayyidina